maa ngi dëkk Géejawaay fii fi la amoon place sam place fi la nekkoon waaw man nak mom amna luma met trop lima lima joy may nak mer nag maire Bédi Ba laa koy quoi ndax mom moy maire Gounass ndax nit ki yëkëti war nga yëkëti sax benn këru suukar sax yaa may dégg ñun ay citoyen nek ci dëkk bi te Bédi Ba ñun ñoko fi teg yaa ngi dégg ñun ñoko ko campagneal duko du duko politigal defal lépp té amna luñu met trop ñun ay citoyen di réew mi leen dëkk sàcc ñu fénu ñu suñu place leen jot dans suñu doolé yaa ngi dégg kon nit ki boo koy yëkkati war nga am war war nga ñëw chaque jour ni la romb góos ak duraal waa maire bi su leen waxee ñun yéen ñëwagun si yéen ñëwagun si yéen tey ñooñu dañoo xëy bettuñu dañoo yi bettuñu dañu dinañ jug leen jug leen jug leen leen lii rafetul ñun ay yaa ngi dégg di daan suñu ah mus ñoo jox benn këyit këyit moom mus mus ñu koo jox ñëpp télé bi fi leen ñoo jox këyit affaire bi laa lay wax ni ay ay 4 jours la dañoo ñëw côté bële jox leen ay këyit waa Sam Notaire ñoo ñëw jox leen ay kër ñun joxuñu dara yaa ngi dégg dañoo ñëw rek tey daal ana tey ana ñu ana ñëw rek ñëw nañu at bisimilah ñëw rajaxe bagage yi yaa ngi def bagage yaa ngi ne ñu jal na le te dama li ay bagage la bagage yaa ngi jal amuñu fenn ko dugal yaa ngi dégg ñu ñooñu abal suñ ko teg nii lii rafetul ñun ay citoyen di réew lañ dëkk agression bi lii rek moo koy yokk agression bi lii moo koy yokk ci town bi nii ay booy booyu daw di door waar laa ay wax nii nga war a ñëw centre commercial boobu ñaar année la ñaar ñu ko wax digg taxaw digg télé bi duna télé bi kenn wul fee dóor waar waaye nga nit ki amul sax commercial géej waay amul centre commercial bu fi benn bu benn benn benn bu fi tabax fii te loolu du yoon géej waay amul benn dañoo tax ay centre commercial dugal fa commerçant ñu dugg fa ñu daan seen doole liggéey ndax nit ki amuñu fu ñu teg yow boo tegee fii ñu jëlee la nga teg ñu jëlee la fi pare léegi dañoo bëgg réew mi avancé yaa ngi dégg réew mi ni mën a avancé ñu tamoon ay kat nit ki boo ko jëlee fenn da nga teg fenn waaye nit ki nga jëlee ko fenn na ko dema nga lii dafa rafetul lii dafa ñaaw ñaaw na ci gisin ñaaw na ci lépp waaye nag ñun garaawul quoi def na noonu lu ko neex jël nañ lépp teg ko ci loxoy yàlla yàlla mu yor lépp yaa ngi dégg jël nañ lépp rek teg ko ci loxoy borom bi yaa ngi dégg yàlla gëmul nelawul waaye lii ñëwaat mooy daax barke sëñ Bamba rafet na na waaye Béri Ba nag mer nañ ko trop mer mer Béri Ba billaay ko ba ci kalamu yàlla na moo waroon taxaw laa lay wax ni ah doon ay kar nañ leen jug leen dañoo jug leen waaye Béri Ba waxuñu dara Béri Ba waxuñu lenn meeram waxuñu dara noonu def loolu na saf nag lépp nag lépp du kenn kenn jëfuñu dara maire Béy di Ba moom nañu jël lépp teg ko moom moo lépp moo ñu tooñ te bu subaa tamit nañ ñaxtu suba suñu xëyee huit heures pile dinañ ñaxtu fii affaire du yombee noonu de soo huit heures na nga ki ñëpp xëy ñu ñëw jàppale gars yi ñu luñu war a kaas wala débordé wuñu xeexuñu xulowuñu ay citoyen réew mi lañ dëkk luñu war a kaas dañ koy kaas te luñu xeex ay borom kër lañ yaa ngi dégg te luñu xeex te luñu xuloo waaye ma war a kaas dama koy kaas